ñu ngi nuyu ñëpp waaw di rafetlu jotaay parce que tey ñu ngi fii si université Gaston Berger Crous nekk ay syndicaliste bokk syndicat bu ñu naan STECI waaw STECI nag moo affilié si CNTS euh, tey ñun ñu daje fii doon waxtaan parce que li xew ñëpp gis nañ ko mooy ñun dañu am syndicat nekk syndicat boo xam syndicat bu responsable tey ñu am le bureau national muy euh, suñu secrétaire général national di monsieur Birima Ndiaye mais dañ toll benn moment boo xam ni syndicat bi ñëpp ñi ko yoroon ñëpp daanaka retraité nañ te mandat bi jeex na ñun ñu doon ñaan nañu renouveler syndicat bi mais booba tey gis nañ ni le secrétaire général national nanguta dem renouvellement parce que li mu bëgg mooy jël nitam teg fa te yaakaar naa syndicat du doxee noonu ñun yàlla dafa def mu yar ñu. ñu nekk ay ñu mënul conscience yi ñuy d'accordul ñu dem vote transparent mais moom nanguwul loolu topp nañ ko si trois fois mu ñuy fauché ba yàlla def na ñëw na démb woo ñu këram du mujj li mu mujjee def lu ko neex wax lu ko neex ñu dem mu jël décision boppam ne moom day nommé ku ko neex parce que syndicat bi nag moomu ko léegi nag ñu ngi ñaan bureau national bind nañ secrétaire général national monsieur Mody Guiro ñun suñu syndicat bi nga xam ni tey yàlla def na ñun ñooy majoritaire si biir kurus si biir kër gi te ñu ngi ñaan nag moo di giro jël ay responsabilités parce que bëgguñu lu tas suñuy syndicat tey assemblée générale bi ngeen gis nit ñi macha allah ñëpp ñëw nañ te ñëpp affaire bi dafa leen metti moo di gërëm nag mi nga xam ne tey mooy suñu secrétaire général national nañu nañ ci wax balaa